nek nekk fi nekk Indo ñaar lam nekk France su bëggoon jigéen ci kooku lay dem. non Juan Kao Californie Sall je vais pas me prononcer là-dessus parce que en fait je m'en fous de ce qui peut lui arriver parce que man soo gisee may wax mama nga baal ma ak yaay nga da nga jur tay metti na nga génn toog di défendre sa doom Kalifon mais xale bu jigéen bii nii du doigt di wax kalifon am na ñaari jabor aawam Inde la France kon lan lay doyee xale bu bi kon xale kalifon lan la wër di taxawaalu ba xale bu jigéen bi nekk ci biir otoom xale peut-être dafa atterrir comme ça dans sa voiture par magie leen waxante dëgg arrêtons d'être hypocrite sa dom ba muy genn fi di jël yaay jambour di ko ci réseaux sociaux yi wax bu ñaaw bu ne mu wax ko yaay jambour yi fan nga da nga mënul won maîtriser sa dom wax ko deug te yow ngay yaayam keneen ak keneen seen yaay sukku jur leen Kaliphone lan la defal Sénégal ba tay ji nga taxaw di waxat sénégalais yi lan la defal Sénégal à part di ñu saga di ñu traiter wax bu ñaaw bu ne mu wax ko Sall dafa am chance li nguuru senegal diko nek diko def ni pour man c'est peu Kalifon Sall la la wax bu ñewon fi bir Europe du xalaata violer sax bay dóor jigen yow mama tay yow ya tok ak sa dom lu mu meunti def mu don sa dom dom sax si xol nga nek jigen amna lo xamne ne war nga sax sa dom di def nga tok di nan Kali dañ koy sosal Kali dafa am jabaru jama dafa am jabaru li Kali da bax xolam bi dafa rafet est-ce que ça lui de tabasser quelqu'un nañ leen arrêté nañ leen arrêté gis nga nit boo ko juree nekkul ci dëgg danga naan ko nekkoo ci dëgg loolu mooy wax ji soo leen fekkee ne ne mënoo leen wax lu rafet wala lu baax bu leen wax nee na nag nit bu joxee bu amee cër moo ko may boppam maman nañ waxante dëgg Khalifa Sall li ko dal ni il l'a carrément mérité ñun nag c'est pas parce que Euh, da am fuñu non non non non loin de là on est des femmes on est des mamans on ressent man tay ji sama dombu bu naka sudu nonu damay tok ne def na naka sudu nonu mais doo ko toog justifier naan nañ ko yabbi nañ ko sex ñun Kaliphone Sall kan mo koy sexat ba war ko y a ko déchet public la doyee wuñ ko dara. jeriñul dara askanam ludul wax ju bon wax ju ñaaw di di di di di di attaquer suñuy mërs nga taxaw fi nan dang koy défendre mais c'est président Ousmane Sonko mu sel mi ñi di saga ñi diko di wax wax bu ñaaw ñi di dekkal fu mu dekkul mo ne day musulena leen porter plainte waye mi ngi di ñaf te la lu len plainte bi yalla yor mo gëna gaaw fop ñi ñi ngi feebar ñi seen xol neexul ñi li ñu ko won mi ngi di dal ñom te mënuñu ci dara li yàlla teg loxo wax naa leen ko te dama koy waxaat jaam mënu ci dara seytaane mënu ci dara te nag ku bañ Ousmane Sonko foo toog sa xol du neex sa xol du féex te ñun ñi ànd ak moom wallaay azim man mii de dama koy seddeel sama bopp depuis bi may commencé di défendre Ousmane Sonko ci ay principe yu wóor ci yu dëggu man day avancement laa ci gis gisuma ci dellu ginnaaw de kon nag dañuy santaat suñu borom Seydina Ousmane Sonko mu sell moo taxawoon ne ginnaaw yàlla yéen askan bi dénk naa leen sama bopp ñun tamit ñun askan bi ko sopp bëgg ko ñun ñooy delluwaat di dénk yàlla suñu borom di la dénkaat Seydina Ousmane sonk mu sell mi nga sàmmal ñu ko aaral ñu ko yow day goot goot yow kun yow mi moom ñëpp yow mi xam lépp yow mi mën lépp maa ngi lay ñaan nga sàmmal ñu suñu Ousmane Sonko mu sell mi awuzu billahi mina sheytaani rajim bismillahi rahmaani rahim kul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad borom bi yàlla sunu borom yow rek yaa fi nekk Seydina Ousmane Sonko mu sell mi yàlla na la yàlla sàmm